noo ngi jub noo ngi jublu lu ñuy wax tabaski muy feet yi nga xam ne dañ koy tudd fii ci réew mi benn du ci farata loolu nañ ko xam benn du ci farata korite du farata tabaski du farata yeneen feet yi ci des ma waxaale ma ko lenn du ci farata waaye tey bu tabaski dee jub yow muy góor yaa ngi fas yéene naan jaksineer lay wut wala mbasin riis wala cuub wala nangam dara du ci farata ci yow loo ci mënut bul ci gàddu ay bor bul ci dugg ci loo mënut ndax du farata bëgg naan xar mi wut xar nangami junni yàq dong te du farata ci yow jur gàddu bor nit la la yàlla jox la nga ca man def ko ci la nga ci tële bàyyi ko bul xool nit kee def na lii war naa def kee am na lii war naa ko am bokku ni wërsëg de diro ko tonlal mbagg nit day def lu man day wax lum xam dégg nga soxna yi nañu yemale seeni bëgg-bëgg góor ñi it nañu yemale seeni bëgg-bëgg du farata de mbubum ñaari fukki junni nga bëgg sol ci benn bis képp tey gàddu yu bor yu dul jeex amee bor yu dul jeex du farata ci nun ñëpp du ci farata ci kenn mbub mu set ku ne mën na ko am mbub mu woyof moo mën a julli jër te du la toggoo yenn toggoo yoo xamante ni la nga cay def am na feneen fu mu xaj yow wala nga gàdd bor boo xamante ni ci sam xarum tabaski ragal sa soxna wala nga ragal sa njaboot wala nga ragal nit ñi dara amu ci njariñ Ya koy wet kep da nga ci gis waajoo xamanteni kat fam def ay déeba mom buutum xaram bo yexé sa xarma du ko saf dar ndax bu xalaté bor bako ko top lol nak amun jarign ci luddut farata balay ëllëg mu jall melni lu mu am nga gaddu ci bor bo xam mi ngi ci sa bop nga dik tuddi diko xalat borom di la fayoo ko fu nga difa dugg man na dem ba yobbu la fo xamanteni sax du du fu la gënal ci lo xam du farata nit day xam lay farata ci mom, yow julli jurom sax doko matale te julli jurom moy fardul hayni kenn mënu ko defal kenn daf la war julli juróom sax matali ko yow loo xamante du farata sunna la du lu war ci yawit loo xam dañ dañu ne lii soo ko defut nangam li nga man rek def ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wut na xar moo xamante ni ku amatum xar ku ne ci xeetam wépp yaa tax looy lépp lépp bor boo xamante ni yow dalay sonal la ko fatt hmm? lan ngay dajale lii lépp di ko ci def soo amee ab demal nga def ca benn pant boo mën a dëkk mën jaa suturul jóge jóge ci luyaas soo ko mu dajale loo xam ne da nga mën a wuti fi béréb boo xam ne da dana la mën a yow mi man loolu yit nga xamante ne am nga ko jërut puukarewu yàlla moom bu la joxe xéewal xéewloo ko waaye nag xéewlu gi bul ca ëppal bul ca ëppal xam nga jullit ñoo tane ci ci wet la ngay jënde xarum téeméeri junni maa xarum million mën nga caa dimbali fukki jullit mbaa fukki jullit ak juróom ay borom kër fukki borom kër soo soo ko jëlee borom kër gu ne fukki nit ne fa loola daanaka ay téeméeri nit nga ciy dimbali. te nit xiif nga lele ko day dara ja ja ca am sunu borom rek ko ko xam.